jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee borom bi dellu siwaat nañ nag ci seen mission bi nga xam ni euh, yàgg nañ ci ànd ak yéen ci ay jàngat ci ay euh, taxaw seetlu yu baree bari mbokk yi bari dañ may bind ni ma choix bu li ngay def ci TikTok bi ngal la dee ko def ci YouTube bi muy gën a yaatu loolu sax sabab ba gis ngeen TikTok yenn saa yi ñu noggutu nit ñi ci ay vidéo yi ñuy def ca teguñu ko fenn maanaam supprimer vidéo nit ci ay bëgg-bëggi nit yoo xam ne teguñu ko fenn loolu dafa dafa war a dakk nag wax dëgg yàlla kon euh, support boobu di TikTok dañoo war a arrêté ni nga xam ne moom la ñuy def sénégalais yi ak nit ñi sax ñëpp parce que ñëpp koy jàmbat da ngay def sa vidéo amul leen lu ci violente lépp nekk sa continue saaga woo xaste woo ay nit jóge fee rek nekk ay doom doomi saay-saay nekk ay doom yi tekkiwul dara signaler sa vidéo ci lu ñu tegul fenn ñu daal di koy euh, supprimer loolu moo tegul fenn kon loolu moo sabab tey ji mbokk yi daañu ñëw ci waxtaanu euh, ngañ demb bi incha allah ban gis-gis lañ ci amee ban xalaat lañ ci amee incha allah loolu mooy tëjtalu waxtaan wi mais balaa loolu ñu reprendre li ñu defoon ci TikTok bi te itamit ñu supprimer vidéo boobu parce que dañ ko soxla fii dafa am benn waxtaankat xam naa moo dinañu illustrer photom mu ñu koy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw dafa dugg ci erreur boo xam ni erreur gënu koo màgg dafa dugg ci erreur boo xam ni boroom xam-xam bu mel ni moom def naa ñi ma xam ñëpp depuis que may nekk ci atelier ba di ñaw depuis may nekk ci rajo bi di di góor góorgóorlu depuis may nekk ci site internet yi ba sax su ma wéetee man sama néeg ak samay portable damay déglu Cheikh Ahmed Tidiane Ndao parce que dama ko bëgg ba sax ay nit bëgg nañ ko ngir sama bëgg ba di ma demander ay waxtaanam nit kooku nag tey moo dugg ci erreur boo xam ne foogoon naa boroom xam-xam du dugg ci erreur bu mel noonu erreur bi nag dinañ ci ñëw euh, lan la wax ak nan la mbir yi demee ndax ñoo ñu jàngal ni ñu in jaakum faasixun bi nabba in fat tabayanu léegi nag boo tollee fii di boroom xam-xam man soaay bu may xoolee Cheikh Ahmed Tidiane ku mel ni Oustaz Hadi Niass laa koy xoolee ci taxawaay damay wax ni dafa war a nekk euh, Cheikh Ahmed Tidiane dafa war a nekk ab régulateur loolu nag gannaaw éléments yi dinaa ci gën a xuus yaatal ci gërëm Modou mi ñu nekkal ci xarale geeg Abdou Toba ak Ablaye Diallo incha allah dañuy dem suñu premier élément ñu xool Cheikh Ahmed Tidiane Ndao bi actualité bi tollee fii ci mbiru ngañ dembay ak li xewoon Touba yan kàddu la ci digtal ñu déglu ko après ñu dellu si waat. fa diine yi ak lu seeni maqaama rëy rëy doyadal itam dëkk ya ñu nekk looloo tax ngeen gis ku mel ni Mola Morgan axanatoon tabaarakallaahu ak euh, ñeneen ñu mel ni ñoom ñu nekk ca biti di saaga suñu kilifa yi saaga yu ñaawa ñaawa ñaawa te loolu déggu leen ba tey Ousmane sonk yéey ci walla mu yàppi ci te nag asumtu iqraar tekkaaralam googu dafa saxal ne ñoom la àndal asumtu iqraar kon mbir mi moom leer na nañ dem gi mu dem Touba saboote dëkk ba taal fa moom dong moo ko mas a def ci histoire tabaarakallaahu voilà jërëjëf moodu loolu mooy li nga xam ni mooy euh, kàddu yu Cheikh Ahmed ja ndaw euh, oustaz boroom xam-xam du xotti day ñaw itamit boo duggee ci tarixab jàmbur bul xotti del ñaw del dajale parce que régulateur lañ la jàpp comme li sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh nekkee woon loolu lañ la jàppe ndax da bokk ci ñi réeveloo xale yu bari ci bëgg xam-xam ci jéem a wut xam-xam ci tarixa bi nga nekk muy tarixa tijaan loolu nag bu fekkee dafa am bu dëkk bi yëngoo bu jaxasoo li xew lépp ñu waroon koo dóor ci préfet bi fekk am réew ñu may ku nekk comme yow ni nga amee sañ-sañu dem ci fu la neex def fa conférence léegi léegi exemple bi ma lay jox su fekkoon ni foofu nga nekk di def conférence état bu Sénégal nga jàkkaarloo ak beneen oustaz ma jël ko kii ma sama xarit imam Babacar Sylla fu ko neex ci réew mi mu dem def conférence bu ko neexee dem Thiès bu ko neexee dem Mbacké bu ko neexee dem Touba fu ko neex dem def conférence yow Cheikh amee Tidiane ndaw état bu Sénégal di la aaye ngay def ay conférence boo ko defee mbuur ñu tas ko boo ko defee Joal ñu tas ko boo ko defee Dakar ñu tas ko soo ko defee feneen ñu tas ko foo def préfet ni la amoo droit def fi conférence waaye imam Babacar Sylla moom mi ngi wër partout ci àddina bi di def ay conférence am amu ci benn problème léegi su imam demee ba ni damay def conférence force wala ay samay ñooñ euh, yàqate wala nangam su boobaa kan moo yàq imam def naan yow jàngalekat nga borom xam-xam nga kon lu la dugal ci xeetu débat yi loolu benn la waaye bala maa sori da wax ni ñiy saaga ñëpp Ousmane Sonko ñoom maanaam da cee noppi parce que kon moo ci ànd moo leen saagaloo ba tudd nga Mollah Morgun ñu ànd ak Modou ba léegi dem déglu ji Mola Morgan am na ab élément bu ñu ci defoon il a trois ou quatre mois defoon nañ benn élément ba dugaloon ci Mola Morgan ci biñ naan dafay saaga def yëf ñu dem dellusiwaat. ça m'engage man Mola Morgan à 100 pour cent Ousmane Sonko sant ko koo dul waxal mosu leen envoyé message nan lay nan lay man damaa topp ba Ousmane ma sant li ma a a wax. wax ju ñaaw ji ñu dégg fan yi nga di ko wax. ça m'engage man Mola Morgan. wax dëgg yàlla man li ma lay conseil su fekkee sañ naa ko. xam naa ni nag sa bopp bi wow na kenn mënta dugal ci sa bopp bi tus. ça m'engage man Mola Morgan. waaye man jàpp naa ni war ngaa mën a jàllale sa ay message te doo wax lu ñaaw sa langage man Mollah Morgun doo yàq ay diggante doo tas ay sëy doo sosal jabaru jàmbur sa langage man Mollah gën voilà mi ngi noonu euh, lii mooy li nga xam ni euh, mooy kàddu yi ñoo indi ci Mollah kon oustaz waaw bul kii nag toppal vidéo bi yëpp ba mu jeex euh, lii moom kii nga ma waxoon ni dafay saaga diw la àndal moom dèjà sax nee na xamul diw mosu ko jokkoo ak moom ba barki démb moo ko doon génneel ay photo ak yu ni mel léegi diw mi nga ne moom mosul wax ci xale yi saaga itam muy Ousmane Sonko moomu ñu ànd ak Modou ba léegi dem rési dellu siwaat ñu ne dafa am ay ndaw yu ànd ak man Sonko nekk ci réseaux sociaux yi loolu la gaa yi wax de di xaste ndax loolu sëriñ bi wax man nga ko confirmer ku ngeen dégg mu wax kàddu gu ñaaw ci diine wala ci kilifa diine kooku bokkul ci Ousmane Sonko waxaat ko ku ngeen dégg mu wax kaddu gu ñaaw ci diine wala ci kilifa diine kooku bokkul ci Ousmane Sonko voilà kooku mooy Ousmane Sonko kon Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndao man de yaakaar naa ni dinaa dund ba dee te cafka ak cofeel gi nekk ci sama xol jëm si ci yow dara du ko wàññi wala bu doon wàññi ko itamit damay toog li baaba kër si daan wax naan duggal sa ruq mën a kan maanaam mu leer ma daal su ma la bañoon wala ma lay xas su ma wéetee dama war a xoolaat sama bopp fan laa ko teg kon loolu laa waroon poser question mais li wàññi. ak li rocci lenn li ci man mooy nan nga mën a nekk ab boroom xam-xam nekk ci réew mi di wax ni diw miy saaga kat ak diw ñiy saaga diw da caa noppi parce que mosu cee wax te ngay borom xam-xam di gëstu ñun ñu toog di la déglu nga war a gëstu ji di ñu indil ñuy xam ndeke yow ki ñu toog di ko déglu mu waroon na dem gëstu ji indil ñu kooku du gëstu loolu nag oustaz njuumte la lu rëy rëy rëy da nga daanu jël bu rëy a rëy rëy def erreur bu mag a mag ci sa ci sa ci sa ci sa daawa lii bu mu la dalati oustaz bu la kenn dugalati ci wàlli bañe bu la kenn dugalati combat yu mel nii man dama lay xoolee wax naa la ko léegi comme oustaz Hady Niass man dama lay xoolee comme keneen ak keneen ak keneen waaw en tout cas nag sab soppe moo lay wax lile ndax man dama jàpp ni dama laa sopp ba sénégalais yu bari xam ko ñëpp xam ko mais lii dafa am lu may tekkil itamit waxuma doo borom xam-xam de waxuma amoo xam-xam de waxuma mënoo jàngale de mais vidéo bi dama cee déggee ni doo gëstu vidéo bi dama cee gisee ni doo lëñbët vidéo bi dama cee gisee ni doo dem ba ca fond ba xool mais dangay xool forme bi rek te doo dem xool fond bi lan mooy jëmmi wax ji leen loolu mooy sabab li li li tax ma def vidéo bi mais aw ma benn kañaan ka yow aw ma benn xebet ci yow aw ma benn ñaaw njortu ci yow wala aw ma benn lu ma lay lu ma lay bañee mais itamit ku la daan déglu di la bàyyi xel di concentré say say vidéo ba vidéo bi ma defoon ci yow tourné ko te dugalaguma ko sama TikTok mi ngi fii sama portable bi ma ko defee léegi war na def 4 jours euh, di déglu histoire bi nga doon nettali euh, ci nit ki bu baaxee des fois fi ñuy jaar di ko may soxna ngir mën koo daaneel ak complot yi ñuy def nit ku baax loolu yaa ñu ko doon jàngal ci siratu nabawiya ñu la doon déglu ci àjjuma ji jot ca rajo Dunia muy rendez-vous boo xam ne ñëpp ko doon déglu loola passé Sénégal yi doyaluñ ci ñu lay déglu bu ñu lay déglu nag waroo dugg ci combat suufa yu xeebe yi vraiment. loolu mooy li ñu doon wax ci Cheikh Ahmed Tidiane kon ñu dem élément ba léegi ci rési bi dem déglu ji ngañ dem ba mi ñu wax ni dafa am lu mu wax la mu wax jur ay wax ci réseaux sociaux yi ak ci réew mi ñu dem rési dellu siwaat il faut nga wax nga xam discours bi lan la mooy sama mbokk yi li ñuy wax daawa li ngay daawa lan la il faut nga comprendre projet bi parce que projet bi nag fal président Ousmane ko étape la ci mais li ko tax a jug mooy soppi xar mu Sénégal su ngeen bëggee xam projet Pastef dem leen ci statut parti bi article cinq wala ci préambule bi di ngeen gis lan moo tax a jug Pastef xam nga lan la waxoon naa ko Pikine dama ko fi waxaat. mooy jëlee jaam ñi ci jaamu seen moromu jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla point final. mooy pexe ba nit ñi moom seen bopp pexe ba sàmm alalu réew mi mooy la recherche de la souveraineté sur le plan économique sur le plan politique et sur le plan militaire. loolu mooy projet bi dans sa substance projet bi nag day adossé wu day day am corollaire moo am programme voilà kooku mooy Ngagne Demba euh, lii mooy kàddu yi moo nga xam ne moom la yëkkati mu jur coow ci réew mi dama ko déglu démb dama ni maa ngi doog a xam li ñu xañoon Mamadou Dia maa ngi doog a comprendre li ñu xañoon Serigne Cheikh Tidiane Sall Maktoum maa ngi doog a xañ li ñu xañoon boroom xam-xami ustaas yi ay jamono ñoom ustaas euh, euh, kii ustaas Alioune Sall ca li nga xam ne moom mooy assemblée nationale oustaz bu leen fàtte ni demoon na ci ay élection ngir dem ci biir assemblée nationale daan ni gars yi au que ñu toog di wokkalu dañoo bëgg dem di wokk ñun ñooy wax ni Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulmans ñun ñoo koy wax. ñun ñoo fi signalé woon barki démb Ahmed Cissé file ŋàññ ko collé ko motif Jamra Diop ñu porté ko plainte tëj ko parce que dafa heurté diine. ñun tamit ñoo doon ŋàññ bërki démb ay personnes yu bëri yu bëree bari yoo xam ne fii ci Sénégal ñu leen di ŋàññ ngir ñi dañoo heurté diine mu am benn booy bu judd ci ne ci jamono te li muy wax loolu si Ahmad Bamba daan wax li muy wax moom la Seydi Hadji Malick si daan wax li muy wax moom la bàyyi Laay daan wax li muy wax moom la bàyyi Ñas daan wax bukkunta Njaasaan amul kenn ci magi Sénégal koo xam ni ñëw nga jamono ba dem lu dul ni lii ngañ ba wax nga doon wax amul kenn ci yonent yi koo xam ne ñëw nga ba dem lu dul ni lii ngañ demba nga wax nga doon wax muy fexe jël jaam ñi tàqale leen ak bàkkaar maanaam bokkaale mais yóbbu leen ci suñu borom léegi bu ñu demee ba léegi crime la ci réew mi nga jàngale di tudd baatu jihaad xam nga jihaad léegi même borom xam-xam yi ñu néew ngay gis sax ñu jàngale ko léegi mel ni jihaad sax tudd ko dafa xaram maanaam boo dee ci nangam da ngaa saxit ñu koy wax yóbbu nañ leen ci kaso bi léegi dem nag léegi ba bu benn jeune taxawee ni ñun leader bi ñu àndal ñun def ko président lenn la ci mais bu ñu ko defee président bokk na ci mooy dem bëgg nañu dem ba defar jikko yi ba nit ki du jaamu leneen du xemmeem leneen lu dul boroomam ñu ni dafay xeex kilifa diine yi ñu ni dafay xeex mag ñi waaw man de jàpp naa ne képp ku wax loolu waxoon naa ko démb te loolu laay reprendre gis nga. mbojo bojo yi moom ñi jàngul waxuma leen parce que dañ leen a yóbbaale ñi jàngul dañ leen a diri yóbbaale leen man borom xam-xam yi jàng ba pare xam ne lii ak naa feq la gu ñu teg seen tànk xam li waa ji di wax xam fi mu koy waxee ñu teg seen tànk ñooñu laay waxal ma ne lii ngañ dem ba wax bépp borom xam-xam bu ngeen di dégg mu ko wax bu dee ab imaam la bu dee ab imaam la dafa yellootul ci yow miy toog ci ginnaawam di julli matatul imaam naa feq imaam boo xam ne da nga da da nga diingat da ngay ŋàññi li ngañ dem ba wax ni war nañoo jaamu keneen ku yàlla bépp imaam bu koy naqarloo ci wax ji mu wax am naa feq nga te kenn waratu la jàll sa ginnaaw di julli muy benn ñaareel bi mooy ustaas bu koy diingat ci wax jii ni dañoo war a jaamu keneen ku yàlla bépp ustaas buy diingat lu mel nii yow am naa feq nga kenn waratu laa joxub conférence kenn waratu laa jox ab programme dëkk bi muy conférencier kenn waratu fa ab conférencier bu dee ab sëriñu daara nga di jàngale yor ay xale te di ŋàññi wax ji ngañ dem ba wax ni nañoo war a jaamu keneen ku dul yàlla te itamit dañ fexe ba nit ñi jaamu yàlla te bañ a jaamu leneen lu dul yàlla képp bépp ustaas bu koy bu koy kii bi sëriñu daara ab naa feq nga jërutoo jox ab taalibe man bu fa sama doom nekkoon ci sa daara dinaa ko nangu sama doomi xarit bu nekkoon ca daara ja dinaa ko wax mu nangu ji ko parce que xale bi ab yéeféer nga ko bëgga a def ndax dafa am ku taxaw ni la lii Seydi Hadji Malick si doon xeex ba àddina ay doomam di ko xeex ba génn àddina ay sëtam ne ca yor li nga xam ne mooy mooy mooy fi ñu toog seen sees bi te képp ku ñu gis ci ñoom li ñu ngay jàngale mooy jàmm yàlla jël nit ñi yóbbu leen ci yàlla defe naa alxuraan moom lañ wabtaqu ilayhil wasila bu ñuy wut wasila bu may wut tey bu man soo ay bu su ma nee man waa kër Cheikh Issa Diène ñooy sama sëriñ Cheikh saa Diène taalibeb sëñ Touba la woon sëñ Touba yaatal ay banqaasam ba am ay góor yàlla yu mu taxawal góor yàlla yooyu di defar ay nit ci góor yàlla yooyu am koo xam ne ci laa jokk muy seex isaa Dieng waaw léegi su ma demee ci kër googu di kër Cheikh Issa Dieng mu may wan yàlla ak yonent bi war maa yóbbu ci sama borom muy ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila waaw wasila bu demee ba waxatu la yàlla ak yonent waaw mais loo fay def kon ñun bu ñee dañoo am ay kilifa li war a nekk gàcce ak li war a nekk rus mooy man may ab taalibe murit di ŋàññi ngañ dem ba ci waxam ji muy wax kon maa ngi tuumaal sëñ Touba sama sëriñ di tuumaal Cheikh Issa Diène sama sëriñ bu dee taalibe Seydi Hadji Malick Sy yaa ngi tuumaal tariixa ba nga nekk ndax lu tax nga war a kaas ci nit koo xam ne danga nga ni damaa bëgg jël nit ñi su ma su ma amee li ma bëgg dinaa jëlee ñeen eh, ñi nga xam ne dañuy dañuy jaamu nit bàyyi fa yàlla léegi ñuy jaamu yàlla léegi wax ji bu nakkaree ci réew mi léegi ban Sénégal la ñu nekk ci ban république la ñu nekk ñan ñoo ñu jiite ñan nag bu ñu demee nag ba Euh, ba xeexal yi lépp ba mu jógee fi ëllëg bu ñu taxawee di saagawaat yonent walla ñuy saagawaat euh, borom bi bu ci kenn wax mbokk yi nañu nañu génne politique bi euh, nañ ko nañ ko génne teg ko nële xam ni politique bi jotewul ak dara ak diine lislaam ji gis nga man ku ma xam-xam ni jamono yi may dénoncé xale yi nga xam ni nettali naa ko ba tàyyi nettaliwaat ko ay xale yu jógoon di saaga kilifa yi man Chouaïbou képp ku toog di dénoncé ñooñu man ngay dimbali ba ñu jëlee ay photo Ousmane Sonko def ko profil ma dénoncé ko ay nit di ma saaga ñi di ma menacé ñi di ma wax lu nekk naan ma da nga bañ Ousmane Sonko ba jamono boobu am na ñu xam li may wax te nekk Medina Baye jege woon Ousmane Sonko dañu dañu woon yow comme comprendre li usman Sonko di wootee dinañ fexe nga toog Ousmane Sonko ngeen def émission te xamuñu li may wax ñu daw ab diir ñu def ay plainte di wër groupe whatsapp yi daan ni képp ku def photo Ousmane Sonko di saaga kilifa yi daañu la porter plainte waaw yàlla àtteem ak ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon def loolu. man ni ñi nga xam ne ñu ngi jël ñu ngi jël Ousmane Sonko di ko def ay photo profile di saaga kilifa diine yi ni xaw ma Ousmane Sonko yëg na ko wala yëgu ko waaye ay nit a ngi def profil Ousmane Sonko di saaga kilifa yi lan lañ jublu ci loolu. mbaadu ñi doon def loolu tey ñooy defaat ay profil di insulter kilifa yi ba tax débat yu mel ni waaye jàpp naa ni ngañ demb mii bu sëñ tubaa te woon ak moom dina yëkkati loxoom ca kaw bu Seydi Hadji Malick si jamonoonte moom dana yëkkati loxoom ca kaw Baye Niass dana yëkkati loxoom ca kaw ndax ñoom lii lañ doon xeex maanaam fexe ba Modou Diouf mi ni Baye Niass laa Baye Niass mooy sama sëriñ moom laa doxalee sama diggante ak sama borom ngir mu jàpp sama loxo yóbbu ma Baye Niass moom ca yàlla la ko yóbbu moo tax mu topp ko di Baye Niass wanewul boppam sëñ tubaa wanewul boppam Seydi Hadji Malick si wanewul boppam ku ci nekk yàlla nga waree kenn bàyyiwu fi ay milliards ci ñoom ndax ñoom bëgguñu woon daray àddina dara waa léegi bu dee dafa am ay xale yu góor góorgóorlu ci diine ñu wax loolu ñu ne waaw kilifa yi la xeex mel ni kilifa yi jaamuñu yàlla yéen da ngeen sax kilifa diine yi bu ñu nee waaw kii moom dafay bëgg nit ñi di jaamu yàlla ah, bañ a jaamu nit nga ni non kilifa yi la xeex waa léegi yow da bëgg wax ne kilifa yi yàlla yow yaay seytaane bi yaay fimiste bi yow yaay rambaaj bi gis nga boroom xam-xam du tàqale boroom xam-xam du nekk naa feq xam ba xam bu baax a baax a baax li ñuy jàngale nii as sirk moom yàlla mais ñëw na ci baatu alxuraan kon xam nga ne am na dégg nga suñu waa ji sax bàyyi asan taxaw ne fii nee na euh, loolu amut duñ jaamu keneen ku dul yàlla mais lu tax kon alxuraan indi ko sirk dafa am bokkaale dafa am am na ñoo xam ne aw doj la ñuy jaamu am na ñoo xam ne aw xeer la ñuy jaamu am na ñoo xam ne jigéen la ñuy jaamu am na ñoo xam ne nit la ñuy jaamu mais loolu am na fi ci jamono ba léegi am na koo xam gëmul dara moom dara la gëmul dara gëmul dee ak dekki gëmul lu neex ak lu naqari gëmul aljanna gëmul sawara moom dafa gëm ni daal dafa war a dund ba dee rek après ñu suul ko après mu nekk ngelaw dem wala mu seey dem déedéet mbokki dañu bàyyi naafeq naafeq yi baaxul ngañ dem sa baat ca kaw gis nga Ousmane Sonko article bii ñu wax ni yow yaa ko def ci kii bi wala sa waa parti man de su ma leeroon ni sax defuñu ko ci su ma leeroon ni defuñu ko ci dinaa def pétition man soo bu ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy santaane pour ñu def ko ci seen projet bile muy ñu fexe ba bu ngeen ñëwee nit ñi ñu not leen ñu bañ a jël seen bakkan yi di ko jox kenn a ah loolu kat la kilifay santaane sëñ am mi waa ji doon def ay dérive bërki démb ba euh, di dendale sëñ Tuubaa ak yàlla lan la def da koo teg mu teg mu tuubal ko ni ko tuubalal sa borom sëñ Tuubaa taxaw na ba ba taay ni man du ma yàlla kenn du ñoom kenn mësul taxaw ci ñoom ni man maay yàlla kenn mës a taxaw palaasu yàlla ko dem ba tuddee boppam xaadimu rasuul liggéeykatu yonent bi waaw liggéeykatu yonent bi koo xam ne man man mbindaanum yonent bi laa loolu la sëñ Tuubaa tuddee boppam xaadimu rasuul bañ na ko ba Ahmadou Geek Bamba Geek nangam bi moom nee na man maay xaadimu rasuul boo bindoonub leetar ca Màkka mu jëm si Sénégal nga ne xaadimu rasuul nga nga ko signé Touba la jëm xaadimu rasuul mooy leen mooy liggéeykatu yonent bi yonent bi xam nañ mooy kan kon mbokk yi bu ñu naxante nañu politique daaneel Ousmane Sonko ci ay urne ak ci ay carte daaneel leen ko bu ngeen ko mënee nërmeel nërmeel leen ko mais yi dafa suufee dafa suufee Sénégal wërta wërta wërta àgg fii débat yi dafa suufee dafa ñàkk fayda dafa ñàkk solo yi dafa suufee du jàll waaw bu ngeen xoolee nag sénégalais ba yiy jàll bay boo ngeen xam ni moom yàlla amatu fi représentant yii moom bu jàllee nañu xam ne yàlla amatul représentant fii nii fii xalifatullahi fil ard amatul kon ci kaw suuf bu lii jàllee mbokk yi lii lañu indi woon di jéggulu ci euh, waxin wi bu dee dañoo jaraape maa ngi jégguluwaat Oustaz euh, ci Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moom laa jagleel première partie bi sama soppe la ma bëgg ko lool mais soppe bi nag tey dafa dañ ko nax dañ ko dañ ko piégé loolu képp a tax mais jubluma ci dara sopp nga ma la soppoom it dara du ci wàññeeku waaye dina am lu rocceeku sama xol nag loolu kenn mënu ci dara li woon sama xol muy mit bi woon sama diggante yow mën na am mu wàññeeku mais bëgg gi ma la bëggoon moom yàlla la woon waaye la ca des nag mooy di gëm di topp di déglu di kii di nangam ba yenn saa sax mën na maa déglu daanu jël yuuxu yooyu nag am na lu rocceeku nag xam naa daanu jël moom moom yaax naa dootuma ko gaaw a def <laughs> jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Ndao jërëjëf Modou Diouf jërëjëf Abdou Top jërëjëf Ablaye Diallo ci son bi jox leen dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.